di ñaan yàlla kii ñu fi tax a daje yal na ko yàlla jéggal wax leen amiin yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xaare àjjana mbir mi métti na ba pare bu ñu jëlaat beneen métti ci kawam bu ñu taxawee fii di wax bu nekk am na loo ci war a wax waaye nañ ko ñaanal yàlla jébbal ko sunu borom la des digganteem la ak boroma waaye maa ngi baaxe nit ñi. maa ngi baaxe nit ñi tamit. dañoo wax nit. dañoo wax nit. bu génnee àdduna bu génnee àdduna. lépp loo xam ci lu baax lépp loo xam ci lu baax. waxal waxal. loo xam ci sabar loo xam ci sabar. maa ngi ca suñu borom. suñu borom moo ko bind moo ko bind lépp lépp. moo ko programme ci moom te nii mu faatoo nii mu faatoo. moo ko dogalee yàlla ko yàlla xaaral loolu ñoo ngi koy baax ñoo koy baax ñëpp bàyyam mi ngi bàyyam mi ngi taxaw am na ci moom cofeel am na ci moom cofeel insha allahu taala insha allahu taala rafet nañ ci njort rafet nañ ci njort li ñu war a defal li ñu war a defal ku ñu indi fii ku ñu indi fii jàngal ko kaamil jàngal ko kaamil alquran defal nañ ko defal nañ ko avant ñu koy indi avant ñu koy indi jàngal nañ ko jàngal nañ ko kaamil alquran sikkar bi ñu doon sikkar sax sikkar bi ñu doon sikkar sax boo demee kër alaaj boo demee kër maam alaaj néew bu ñu leen indi néew bu ñu leen indi sikkar boobu lañ koy sikkar boobu lañ koy sikkar yàlla dogal na yàlla dogal na fa laa dëkk fa laa dëkk kon nañ koy ñaanal yàlla koy ñaan yàlla yàlla kenn ko yàlla xare àjjana kilifa gi nag sunu kilifa gi wax na ni wax na ni pour ñu taxaw ñu taxaw ko nangu nañu ko nangu nañ ko à cent pour cent à cent pour cent waaye yàlla waaye yàlla dafa dogal bàyyam bi bàyyam bi muy ñëw ànd naag seen ànd naag seen imam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu ni mu ni boo gëmee yàlla boo gëmee yàlla gëm bis bi gëm bis bi boo amee gan boo amee gan nan ko teral nan ko teral ñoom ñii ñoom ñii suñuy camarade suñuy camarade la ni ci yoon bi ci yoon wi bu ñu leen gisee bu ñu leen gisee li ñu war li ñu war moo ñu tëral leen moo ñu tëral leen. te incha allah incha allah ñu ngi ñaan ci yàlla ñu ngi ñaan ci yàlla. mboolem imaam yi fi nekk mboolem imaam yi fi daje yëpp. ànd ak seen rakk ànd ak seen i rakk. ñu jël mbir mi ñu jël mbir mi. jébbal ko imaam Abdoulaye Fall mi imaam Abdoulaye Fall. mu ñaanal leen suñu jigéen ñi ñaan yàlla ñaan yàlla ñaan ko yàlla jéggal mboolem ku fi taxaw mboolem ku barke salaay barke salaay salaamu aleykum dama ni metet lol lol lol lol bo xam ne bii xamuñu fu ñu koy jëme am naxar lol naxar bo xam ne bii mënul xam boobu naxar nu mu tollu dee na rek lañ ci am waaw demee tànk ñëwee kees su ko digee na ma xari amul doom ci amon jëriñ amon jëriñ ci ndeyam ak ci astan wi yëpp taxawu ñëpp bëgg ñëpp xale bu ndaw mën iyan ko yendal àll njéeme alalam boolewu ko kenn takk ndiggam di liggéey rek lañ ko xamee ba mu nekkee lu tuuti ba léegi nekk na photographe nekk na ñaw bu rafet bu nekk def nako. ko jàppale rek askan ak rakam ak yëpp bu koy ñaanal rek fa mu nekk yalla na ko gënal fi mu ne fi mu na ko yàlla xaare àjjana jéeme jaw yàlla bu ko cat jiitu ko malaakam yërmande teeru Muhammad Rasulullah teeru ko yàlla bur bu baax bi dugal ko ci àjjana yi gën a kowe barke nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fu mu mën a nekk fu ne balay def leen na xalaat waajur xalaat ay rakkam xalaat ñëpp waar rek la deewe dee ci waar wi rek dee ci waar wi rek nag mais tey ngu kii njéeme génn na àdduna mbetteel bi rek douloureuse rek métti rek métti rek métti rek dama wax ak moom àjjuma si ngoon timis tàkkusaan bu ñu tàgge ma ko métti rek métti rek métti rek métti rek bor bu nekk taxawu na ma ko boor bu nekk taxaw na ko bu nekk nag taxaw na ko ku ne waaw ah, bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn li ma metti ci moom rek mooy ñaq yu mu ci dara bëggul dàll bëggul mbubb bëggul takkaay bëggul dara liggéey rek liggéey rek la xam liggéey rek la xam teg naa lépp ci loxo yàlla ak barke sëñ Babacar si sama maam sëñ Babacar dina ma ko taxawul inshallah rabbi nek ni lolou taluma ko affaire alal yoyu talu ko sama dom ji lay joy ndax mooy lo sax sama dom ji taxawon sama wet moma ko gënal li nit du dund rek bu ñaké mbokam lo rek lañuy dund nekkon nit ku baax nit ku am yek yek ci famé bi nit ku famé bi taxaw yaayam taxaw ay rakam taxawu ay tanta njéem bayiwul kenn bëgg ñëpp ñëpp ko bëgg jàmbaar dëkk moo dem tey jigéen ju mën góor moo dem njéeme dafa xare ba dee man day sama mbokk la sama cousine la sama grande sœur la mais door waar rek laa ko xam 98 ba léegi mi ngi France pare woon pour tey néew lañu am tey waaye loo gis rek mbiru yàlla la xëñ na nii la ko yàlla bëgg di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fii yàlla na ko malaakar yërmande teeru yaayam kontaan na baayam kontaan na ci moom fameem kontaan na yàlla na yàlla kontaan ci moom yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na ko malaakar yërmande teeru boole nañ kook Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam métti torop ma ne ko métti torop ndax man bi ma mujjee waxanteeg moom ci jouru tabaski bi la lañuy yónnante ay message di ziarante ma koy tooñ di ko laaj naka tabaski bi noo ko dundee foofu mu naan ma di ma tooñ naan ma ñam bi da lay lekk mu naan ko grande sœur lekk ñam bi jour tabaski loolu de moom ëpp na da ngay programmer nag bu déwénee incha allah nga ñëw ñu tabaski ndoo ensemble mu ne ma noonu lay def sama kayit yi rek laay xaar mais damay ñibbi si Sénégal xaar sama certificat invalidité bi ñu validé ko ak kayit yi may liggéentil biige mooy sama rakk moo bokkal ndey ak baay su loolu sottee rek damay ñibbi si toog ñu may fay sama xaalis ba ba dee ma yeew dimanche samedi ci guddi la xew ñu ma koy nëbb samedi ci ngoon dimanche ma xëy woo sama yaay rek ñu woo ma ko mbetteel daal comme li ñëpp am rek loolu la ñu am parce que ku programme ni da ngay ñibbisi di ñëw sa kër bu ñu yëgee ni dee na xamuñu yan condition la deewee mbetteel rek lañu am ak tiis benn yoon ba ma yónnee audio yi fépp la katasaare ci biir àddina bi yëpp njéeme du du genre yooyu parce que dafa gëm boppam dafa gëm boppam yaay ma ka ko naam mu ne ma damay jaay sama kër waaye ci sa ajjuma mu ne ma jaayatuma ko li mu daan jar sax dama koy wanteer luñ ma fay ma jël damay ñibbi si sama dëkk investir si fa lii la mu jéema mu jawax ak man waaye nag àddina bi yëpp ku ñu jooyal ah. nga jàpp ci yàlla te nga xam ne metti na mais nag ñun ñëpp ay jullit lañu ay jullit lañu metti na ndax li xaw France yëpp xam naa ko am na lu ci bari lu ma suivre ñu di ko ñaanal moromam yëpp amul kenn du tubaab du kenn koo xam ne rek ñaanaloo njéeme waxoo ak mbaaxam ñu bari mu may leen jabar ñu bari mu may leen jëkkër ñu bari mu wutal leen liggéey ñu bari mu wutal leen ay kër ñu jëndal leen ay terrain di liggéey bëgg a yàq mu ni leen ñëw leen ma jëndal leen terrain ñu ngeen dëkk ci foofu ci Besançon boobu ci bari da daan waxtaan ak man lu mu daan def ku daan taxawu senegale yi te taxawu sax tubaab yooyu ci seen jëm bopp te taxawu askanam yàlla baax li ñuy ñaax nguur gi rek mooy ñu ko justice soit faite parce que dafa metti daal sori say mbokk sori ñëpp ñu rey la noonu naan la suicide la dafa dafa yomb daal ni ñu bëgg daal que justice soit faite loolu la am gis ngeen seede yu rafet yu ñu def ci Ndiémé Diaw nekkoon nit ku baax taxawoon na ay waa këram ay mbokkam ak ay njegeñaaleem mu amoon nag yéene dellu fii ci Sénégal bëggoon a jaay këram bu nekk ci Besançon foofe ca France ginnaaw bi mu fa defee ñaar fukki at ak ñett waaye yéene boobu jotu ko yeggale ndaxte fa la jaax ñàkk fa bakkanam ba tax na rek waa këram am fi mbetteel loolu ndaxte ñu ngi ko doon xaaxa ci mois d'octobre bu ñu jëm gisuñu kenn lu dul keesu néewam bu wàcc seen buntu kër mu doon loo xamante ne ñu ngi koy mettilu waaye teewul ñu ci sant yàlla loolu ndaxte buur yàlla gi moo jël seen doom jile di njéemé jaw waaye nag ñu ngi ñaax nguur gi mu def lépp lu ci wax ndeex mbir bi mun a leex